ndax di ñi ko seq si Abdou Fatah day koo xam ne moom euh, benn dàkkantal la mooy ak bëgg si mm-hmm. waaw léegi bu ngeen wëlbati ko di di wut ci sëñ Baye Galas sëñ Baye Galas nga xam ne nit ku baax yiw la Baye ma nit moom lu ñu la ba ne la nit mm-hmm. fa nekkat di détail naan jikko ji nga xam moom lépp a mbaax waaw te moom nit ku yiw la moom si nawet mii nag si yërëm ànd di lu yàgg loo xam ne dëgg la cant boo xam ne teguwul ci lenn lu ab taal ak ak bëgg Cheikh si Abdou Fara lim leen di wooye mooy ëllësiina ak amanu kon nag ëllësiina ak amanu moom bu am ñu ci toppee di xamilu saalihaat loolu yàlla dig ci alxuraan rek mën na leen daal te yàlla na leen daal ci bàcc Sëñ Tuubaa ñu ngi sant bu baax a baax ci wàcc foofu kàddu yi asalaamaaleykum salaamaaleykum wa mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare nuyu ci tu Seex Muhammadu Muntaxa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu tam ànd ko wér ak Seex Abul Baraka ak suñu Seex Abdul Fattah nag di suñu Seex Maodo Fadal di ñaan sunu boroom yàggal ko fi loolu tam ànd ko wér lool di leen jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Cheikh Mamadou Fadal ibnu Cheikh Mamadou Abdoul Fatah di ko ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla yàggal ko fi ba leen yéenee liggéeyal maamam lépp yàlla mootali ko ñoo ngi sant yàlla bu baax nag di wax alhamdulilahi rabbil alamin li tax ñuy sant yàlla mooy dañ fee teewoon heure bii daaw doon dund Serigne Fallou ñaanoon Serigne Fallou ne yàlla nañ ko fekkee fekkewaat déwén kenn bañ a manqué kon nag buñ teewaatee fii kenn manqué wut lañ ñaanoon yàlla ñaan ko Cheikh Mamadou Fadal defal nañu kon ñu ngi koy ñaanaat ñu teewaat fi déwén kenn bañ a manqué ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Cheikh Abdoul Fatah Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ak Serigne Fallilou ture bu ma leen tuddee rek tudd naa mboolem daay rek bu dee jigéen ñi ñu koy toog ci loxol soxna Marème Gueye di leen feddaliwaat suñu kóllëre di leen wax ni Serigne Fallou si Abdoul Fatah suñ xol di sedd na guy li tax suñ xol sedd mooy li Serigne Fallou lu wax léegi booy liggéeyal Serigne Fallou te yëgoo ak yokkute sa bopp dangaa war a seet la ngay def lu mu waaye ñu ngi seereel na de seen dikk gii ngeen fii dikk ren jii lañ leen waxoon daaw ren jii lañ gën a yëgaat ak yokkute suñu bopp mm-hmm. nag ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Fallu loolee sax dàq te yokk lool tamit ñun nag dañoo amul lu dul Sëriñ Fallu mm-hmm. bëgguñu ku dul Sëriñ Fallu kon nag buñ doonee ak njabootam di defi ci moom mm-hmm. di nab nabi ci moom ngeen ciy doxe nii loola day ànd ak kum dalal xel bu baax a baax ñu ngi leen di seereel tamit ne jamono ju nekk ak fuñ mën a nekk suñ xol mi ngi leen di yëg bu baax a baax ndax kat li ma leen daa wax rek laa leen di waxaat Cheikh Mamadou Fadal ma nga xam ne mooy seen jëwriñ yàlla boole ñu ak kóllëre boole ñu ak mbokk loole kenn ku ne am loo jàpp sa moroom yéen ngeen doon ay ay ay ay ay ay mbokki taalibeem mu doon seen jëwriñ ci Serigne Fallilou ngeen gis ci loola aw doxin woo xam ne xañ na doxin woowa neex na leen wala yëg ngeen ko seen xol boo waral ngeen ngeen ngeen ñuy sàkkul bisub siyaar bu mel nii loola de sedd na suñ xol bu baax a te xam ne amuñu suñ amuñu seen fay yéen ndax kat lu wér te wér mooy bu ñuy làmb ak taalibe bu ñu egsee ci yéen dëpp ndax ak taalibe moom weesuwut njabootuk Sëñ Tuubaa gépp nga boole leen jàpp boole leen yemale te lii jotaay bii waral na ne loolu rek la kon nag ñu ngi ñaan ci barke Sëriñ Fallilu yéene ja ngeen am ca moom ak yéene ji ngeen am ci ñun ndax yéene yi benn la yàlla na ko Sëriñ Fallilu sëriñ Baye Galas nag la ma leen daa wax rek keroog ca siyaar ba képp koo xam ne doon na sa jëwriñ beeboo sam xel dal ndax ndax ñaar leen nen na ci moom moom Cheikh Mamadou Lamine Bara wax léegi nit ku yiw la de nit ku baax la nit ku bëgg lu baax la nit ku bëgg ak taalibe la nit ku gëm sëriñ Fallilu kon nag bu leen yàlla booleeg moom ñuy ñu ñu ñu ñu ñu ànd di liggéey sëriñ Fallilu loole war nañ cee ànd ak xel mu dal te xam ne liggéey boobu Serigne Fallou dina ko nangu ñu ngi ñaan nag ci barkeb Serigne Fallou képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci dara yal na ko Serigne Fallou barke képp koo xam ne amoo loo yëngu tamit yal na la Serigne Fallou jàppandal loo yëngu ndax yéen ka seen seen pas-pas bii ma gis maanaam ay xéewal yu bari rek moo baax ci yéen ba lépp loo xam ne yéen a ngeen koo liggéeyal Cheikh Mamadou Fadal ibnu Cheikh Mamadou Fata Cheikh Abdou Fata yàlla mottali ko ci seen poos yi na xam naa kenn ku ne ci yéen bu amee xéewal la Serigne lu bëgg dina ko am ndax seen pësséef ak seen pas-pas kon nag ñoo ngi leen koy dogul ci sëriñ Serigne lu di ko ñaan yal na nu ko sëriñ Fallou defal ay xéewal yu bari lool ànd ak jàmm ku wér nag ak sutura àdduna ak àlaaxira suñu xol sedd na ci yéen suñ xel dal na yal na leen Serigne lu gën a taxaw bu baax a baax mbokk yi nag gone yi dañoo dem ci liggéeyu kii ba sëñ sëñ Sidi mu sëñ Blaat Daaru Salaam bukki barke man barke dem fa laa yendu ndax loolaa ma taxoon na ñëw ndax suñ siidi suñ seexum mi suñ fallu suñ am sax da ko sàkkoon na ko na mbooloo mi ñëw jàppale ko liggéey bi mm-hmm. yëpp ñoom ñu ànd dem ñu woote woon ko ñu dem foofu mm-hmm. waaye dama bëgg at jot bu ñëwatee ñoom mbooloo ma di dajee nii mm-hmm. ngeen di saafante di xamante ndax kat ñun ñun ñëpp ndox ak suukar boole tuur wala boole naan waaw fii moom mooy kër sëñ fallu feey sama kër waaw genn kër la benn bunt la tamit genn njaboot la waaye na ngeen seere na daal ñun ñii safoo nañ leen bëgg nañ leen suñu xol te yàlla ak sëriñ Fallu rek maa ngi soññee waat tamit lépp loo xam ne rek nit na ci wala muy ittey na ma dimbale rek ma yëg loola ci jëmmi sëriñ Fallu ndax kat sëriñ wax naan ay nit moom ni ñuy defante mooy saaf wante jokkalante loolu rek moo moo ci am solo kon nag sëriñ Fallu ñoo ngi sant bu baax di sant ci jëf ji mhm. ak li nga xam ne yéen a ngi koy seere ci ñun lépp ci yéen la nekk Cheikh Abdou Fatah yéen rek yéen a baax mhm. yéen yéen ay ay taalibe mhm. yéen yéen a bëgg lu baax ndax jot amut kon nag kuy xeeñte lu baax rek jéggi benn béego ñaareel ba rek kooku nit ku baax sëriñ alaaji ñoo ngi lay siyaare baax suñu alaaji Guèye doomi alaaji Mor la mooy xalifab suñu Baara mi ak Cheikh Oumy mii fi teewoon ak njaboot gi ñëpp di ñaan ci barke suñu Fallu daal yal na yal na sax lool sax dàkk lool yàgg lool bu fi ñëw tamit at mu jot boo ñëwee njëkk ak yokkute sa bopp tamit ñu ngi koy ñaan ci barke suñu Fallu man na ko yal na ko def ci teewaay yi gën a taxawaay yi gën a yokk poos yi gën a am xaalis barke suñu Fallu eh, Cheikh Saara ngi nii moom moom moo fi teewal ñoom béytu rek ñun ñëpp ak suñu Ablaye Gueye ñe ci des nag dañoo ne ca tool yi waaye waar wi lépp benn lii aw waar la loolu aw waar la waaw kon nag yàlla na taxawaay yàgg. amiin seexul xadim dégg nañ lool jërëjëf. yàlla yàggal la fi bu baax